Euh, jërë ngeen jëf euh, yéen suñu mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di ni di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat li di kontaante ak mbégte bu baax na comme ni ma ko faral di def kilifa yëpp wala sëriñ boo xam ne dal naa la ci biir site bi rek fas yéene naa ñu waxtaan ci xam-xam yaatal ci bu baax a baax. jëmm ji ngeen di gis nag yaakaar naa mën naa ne tey mooy suñu njëlbéenu émission ci biir site bi waaye tey nag fas yéene ñoo waxtaan ci xam-xam yaatal ci bu baax a baax aca ki may dalal tey moo di noo Khayre Sow tey nag dinañ waxtaan ci xam-xam waaye ci ponk yu bëree bëri am solo waaye ni ma ko waxee xew jamono di actualité dinañ ci yaatal bu baax a baax laata ma ñëw suma biir programme noo Khayre Sow damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi. alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alladi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah rabbi shrah li sadri wa yassir li min lisaani yafqahu qawli site bi ñu ngi leen di nuyu di leen di fay bu baax a baax 221 people macha allah di nuyu adduna bi yëpp jërëjëf euh, Thierno Khayri Sow ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw suñu set yoo tànd dal ñu ci kontaan bu baax dinaan la dalal jàmm comme niñ koy def ak say naataango yëpp noonu lañ ko fas yéene doxale waaye lépp ci xam-xam lañ koy wér ci diggante ñaan ak faj dinañ ci waxtaan ci ponk yu bëree bëri waaye nag nee na daam loo xam ne gis na ko. Euh, ci diggante kii di euh, président Macky Sall ak kii di président Ousmane Sonko lum ci bëgg a baaxee gars yi ah li mu gis nag nañ toog vidéo ba mu jeex ba xam lan la war a doon. atia dama ñëw ci seet bi nga xam ne yaa koy def euh, bëggoon naa nga baaxee ci comme que seet dafa bëri toyaatu ban façon seet ngay def noonu. alhamdulilah beneen yoon waa sit bi macha allah si question bi am na solo seet moom wax dëgg yàlla dafa yaatu te. nañ ci bu baax te tamit jàng nañ ci yàlla tamit may nañ ñu ci te am te am na tamit am na lu ñu ci doon ci suñuy wajur seet bëri façon te bëri na tamit yu ñu ci mën waaye euh, seet bi ci gën a gaaw rek mooy boo xamante ne dañ koy seete ci photo nit fu mu mën a ne rek bu ñu yónnee photoom ci whatsapp ñu xool ko dinañ ko seetal loo xamante ne du dañu fi ba ilaa yawmi diin dara du ci deñ tamit dañ koy seetee dañuy istixaar tamit am na tamit loo xamante ne dañ koy seetee muy eh, loxo bii nii mbir mii nii mbir mii nii loxo bii ngeen di gis benn rab la rab bi nag tur bi duma ko wax fii day seet day liggéey lu ne day fal te day folli tamit ko bëgg muy muy loxo bii nii rab bi rab bii nii amul fii nii ci senegal mu ngi am ci àll Gambie bi lii juróomi baaraam la woon. yeneen baaraam yi am na liggéey yoo xamante ne liggéey yu mag yi ci liggéey ci lañ koy dindi boole ko ak liggéey yooyu noonu ba mu des ñetti baaraam bi nii kon seet maanaam duñ ci waxantu pour yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen seet bu wér rek fexeer ngeen jokkook uh, Thierno Khayri Sow ndax mu ngi ciy def résultat am yu solo ndax gis ngeen loolu mu leen uh, wane tam bokk na ci fi mu koy jaaree ci seet yi nga xam ne mu ngi koy def acca waaye dama ñëw ci kaaraange ubbeeku bayre ñett yooyu dama ko faral di boole waaye ñu ñëw ci kaaraange di protection bi nga xam ne yaa ngi koy def. waaw alhamdulilah di wax rek nit ki moom warut a dugg ci lenn te amut kaaraange. wala ci lépp lum mu war a def war na ciy jiital kaaraange ndax uh, jamono ji dafa doy mën nga nekk ci lenn ci tuuti ngay yëngu nit ñi xeewuñ dara gis la ci loolu tamit indi la ay gàllankoor kon nit ki balaa moo ut bayre wala ubbeeku wala si wala yeneen ak yeneen na ut kaaraange ba pare doogu ut yeneen su boobaa ci la ko yàlla di musal yenn faxastal yu ko naroon a dal ci wàllu dundam kaa ngi moom euh, ñu ngi ciy sant yàlla bu baax yiñ ci jëfandikoo alhamdulillah am na kaaraange goo xamante ne bésu àllarba lañ koy def lañ koy sangu ci ci bés bi ci ñett ci ñetti waxtu nit ku bu xëyee suba gi ak waxtu tisbaar ak waxtu tàkkusaan te kaaraange boobu àndut ak bind sunguf la ak lii nii mooy weñu semmiñ bii lii lay àndal sunguf soosu ak ak lii mooy ànd amut bind amul dara te kaaraange bi moo gën a doy waar te amul fenn fu koy sangoo nag mooy fa mën sa dëkk ba bii moom duñ ko yóbbante fenn waaw ah, te bii lu lépp lu mu fekk ci yaram da koy dindi muy liggéey ñu mu sëf la ba nga diis mënatoo dara même boo demoon hôpital nga tëdd fa duñ gis ci yow feebar waaye boo ñëwee yàlla dogal bés boobu bés àllarba boobu nga ñëw nga sangu ci ñetti waxtu yiñ la wax yàlla dina la dimbale fëgg sa bopp nga jóg nga dellu ci say liggéey incha allah rabbi euh, dama ñëw ci ubbeekook bayre waaye ñu ñëw ci ubbeeku bu am solo bi nga xam ne yow yaa ngi koy def waa alhamdulilah ci côté ubbeeku tamit dañ ci jaaree ci yoon am nañ ci yoon yu bëri ci yoo xamante ne ci alkuraan la am nañ ci yoon yoo xamante ne tamit ci wàllu sunguf la ndaxte boo nee pël na sunguf sunguf tamit ñu ngi ci sant yàlla bu baax dañ ciy liggéey loo xamante ne ci wàllu ubbeeku la ak kazalika ni ki wàllu kaaraange yeneen ak yeneen alquran tamit boo ñëwee ndaxte nit ki dafa am biddiw nit dafa am biddo am rawxaan bëri na lu muy àndal ñeenti biddiw yi muy naariya mooy safara ak suuf ak ndox ak ngelaw ñeenti yooyu noonu la yàlla bindee nit ñeenti yooyu nag bu nekk nit ki du si ñàkk benn biddiw bu mu ci doon nit ki buñ la xoolee ba xam yow sa biddiw lu mu méngoo su boobaa dinañ xam yow lan lañ lay defal ndax aaye lañ lay bindal daggal la xaatim jox la nga sangu wala sunguf lañ lay jox su boobaa ñu la ci defal rek incha allah di ñu ci gis résultat incha allah. Euh, ci bayre bu sos sàpp nag bi nga xam ne yaa ngi koy def waaye duñ ne bayre bayre boo xam ne day ànd ak koom-koom waaye ñu lay tudd kese ni mu ko saa su nekk amul njariñ waaw beneen yoon alhamdulilah bayre tamit nit ki balaa mu ko ut day fekk moom tamit mu mot mu taxaw taxaw nga xamante ne dara du ko faxastal mu kaaraange mu wot mu mot ndaxte bayre dafa bari façon. di nga gis ku fi kuñ fi defal bayre du mot weer mu am gàllankoor. ndax ñàkk kaaraange siiw dafa bëri façon dañu gis koo xamante ne moom turam rek mooy dem waaye am amam du demee noonu bayre bayre bëri na façon na bayre boo xamante ne buñ la ko defalee mu ci lépp loo yëngu muy ngay commerçant ngay jaay ak lépp loo mun a doon dafa ànd bayre bi dafa ànd kaaraange te yàlla dina la aar te li nga bëgg ci sa côté ci ci li nga bëgg bayre boobu loolu dina la wuy si dinañ ko liggéeyee tamit ci bopp golo ndaxte golo ku ko xam moom ci yéeg rek moom lay def daanu pour gis golo ko daanu est-ce que est-ce que nañ koo gis moom bopp golo boobu dañ ciy fal képp koo xamante ne bëgg na yéegee ay maqaamaam rek dinañ ko liggéey ci bopp ci bopp golo su boobaa suñ borom dinañ ci dina ko ci defal résultat incha allahu rabbi aca ci rab rab mi nga xam ne moom euh, euh, nit ñi dañ koy waxtaane saa su nekk mu di sa mbokk sëriñ si yan gàllankoor la mën a yóbbu nit ki lu mu ko mën a yàqal ak lan la ko mën a defaral. waaw rab am nga mbiru rab dafa sew ñu bëri ñu ngi ciy yëngu waaye rab dafa nekk loo xamante ne dafa sew ba pare te saay-saay nit ki mun nga ñëw nga seetal ko nga gis rab bi nga xam carrément nga ne mun nga koo faj nga jox ko ay garab waaye bu demee mun na tane waaye terewul rab bi dina ñëwaat mu ngi fam ne woon ndax dafay làqu bu la yàlla dimbalee nag nga xam carrément fi nga koy jaaree nga xam saraxam nga xam xam rawaanam nga xam bésam nga xam heure am bu yàlla dimbalee loolu boo amee boo ko defee incha allah yàlla dina la ci dimbale eh, yàlla defa la ci tawfeex ndax rab dafa nekk loo xamante ne dina nekk ci nit ki di ko yàqal façon rab boobu am na am boo xamante ne nekk ci nit di ko yàqal waaye dina ko dina ko défendre ci benn côté am na rab boo xamante ne tamit boobu moom du jullit eh, boobu seetaane la boobu yéeféer la boobu day tax nit ki di nekk ci loo xamante ne eh, loo xamante ne neexul yàlla mun mun na koo yóbbu muy moy wala mu yóbbu ko muy def loo xam ne naka sudut noonu loo xamante ne nekkul loo xamante ne moo ko tey loolu rab bi da koy def comme ñi ñi nga xamante ne dañuy fooy ñoo xamante ne dañuy fooy seen bopp ñoo xamante ne dañuy dem di taxawaalu loolu rab boo xamante ne bu duhut jullit da koy def am na boo xamante ne tamit boobu bu jullit la dafa set wecc boo xamante ne bu nekkee ci nit ki nit ki bu demee di def loo xamante ne waru koo def di mooy ànd ak tilim rab rab bi bëggul loolu su boobaa rab bi da koy fay da koy indil ay gàllankoor am na boo xamante ne dafa set wecc dina la dimbale waaye dina la ga la indil ay gàllankoor ci kaw nga def loo xamante ne bugg ko wala génnewoo yim lay laaj ay saraxam mu la yàlla dimbalee nag nga tase koo xamante ne mun na seet comme ni ñun mu seetal la wax la say sarax nga def ko jox la li ngay def nga def ko yàlla dina dimbale sa aaju faju ndaxte rab dina tee nit ki am ay gàllankoor ci liggéeyam wala ci néegu seyam wala ci lépp lu muy yëngu yaakaar ni ñi ñoo ko teg fekk kenn tegu ko fekk lu ci ëpp doole loolu rab la incha allah. ci cat ni ko olof Njaay di waxee su reyut semmal wala mu topp la sa biir bàmmeel cat ci boppam lañ ci mën a baaxe waaw cat moom boo xoolee ne cat sax moo gën a ragallu ni liggéey ndaxte cat dafa sew te dafa am tooke làmmiñ dafa am tooke cat mun naa gaare nit mun naa tëral nit hôpital yaakaar ne dañ koo liggéey fekk kenn liggéey ko dañuy dégg sax nit bu gaañu ñu koy ñaanal naan yàlla bu ko cat jiitu ca bàmmeelam kon cat dafa nekk loo xamante ne lu dangereux la nit buy ut loo xamante ne ut ut kaaraange na ci boole cat ak bët ndax ñaar yooyu dafa garaaw euh, loolu tamit dinañ ko jaaree ci côté ci Fatiha moom moom mooy cat ndaxte Fatiha amut lu munut Fatiha kese dinañ ci liggéey juróom-ñaari façon yoo xamante ne bokkut ci ci faatiha faatiha dinañ ci liggéeyee cat dindi cat ak dindi liggéey ak ubbi nit ak bayre ak noob ak booli nit ñi jubóowut loolu lépp ñaa yi ma fi lim am na yeneen yu des waaye yooyu moo loo xamante ne mun naa kaa lim ndax temps bi mayuñu ko loolu lépp dañ koy liggéeyee ci cat nag faatiha moo ci liñ ci am faatiha moo ci gën a gaaw te am nañ ci tamit ci yoonu sunguf yoo xamante ne boo ko defee incha allah yàlla dina la dimbali. ci feebar bi ñu naan jabet nag nga xam ne moom daa mel ne jamono ji léegi bëri na de loo ci man waaw jabet léegi bëri na ndax euh, lekk yi tamit mu ngi ci dañuy gis liir liir bu judd tey ñu ne ñu ne am na am na trace jabet jabet nag traitement am benn weer la kese un mois kese nga gis résultat un mois kese boo ñëwee bu jëfalante un mois nga gis résultat incha allah rabbi man nag dama sob lu ma gis dinaa ko laaj de. béjjën la wala lan la ci lan lay dox njëriñam lan la. waaw lii de béjjën bi nii liñ koy liggéeyee dafa jafe trop te béjjën bi dañ ciy liggéeyee lu ne béjjën bi dañ ciy seet gis nga seetu bi béjjën bi dañ ciy seet nii béjjën bi dañ ciy defee tul tul muy weñ di feteel béjjén bi lépp muy kaaraange police boo ko ragalee du la teg loxo muy béjjén bi nii de maanaam lim kaaraange gim àndal dafa bëri ba buñ fi toogee di ko lim tamit fii timis fi la ñuy fekk incha allah. jërëjëf kooku mooy nu Khayre Sow pour ñi nga xam ne soxla nañ ko doonut ku naqaree jot ndax numéro yi ñu ngi doon affiche suufu barre d'écran bi yow contacter ko rek dina jëflanteeg yow ba sa xol sedd guy ndax am doon na ci ñi nga xam ne suñu borom jox na leen lii di xam-xam bu màcc ay fexe leen ngeen jëflanteeg moom. acca euh, ci xew-xew jamono laa ñuy jeexale mu di actualité nga ne lan nga gis ci président Macky ak président Ousmane sonku waaw diggante président Macky Sall ak président Ousmane Sonko wax ji bari na ci torop te kenn ku ne muy génn di ci wax dégg naa tamit ci ñoo xamante ne ñu ngi naan Macky amut maanaam amut kaaraange maanaam amut sëriñ euh, te man gisuma loolu Macky dafa nekk nit koo xamante ne nit ku danger la te Macky dafa mystique dafa taxaw dafa mystique mun nga xëy journée di xool Macky di ko seet. doo ko gis ndax dafa nekk nit koo xamante ne dafa pare yàgg na balaa moo doon président euh, euh, di wax ci élection yi ñëw du mille vingt quatre la bu fekkente ne bokk na ci élection yi gisuma lu koy tëree lu koy tëree jëlaat réew mi bu fekkente ne bokk na laa wax bu fekkente ne naaguwut bokk na gisuma lu koy tëree jëlaat réew mi te su boobaa dina doon bis boo xamante ne bis bu tar la ci sénégalais deret ju bari dina fa tuuru su boobaa am na ci ay sarax boroom kër bu ne bu mun na génnee ñetti kilo yàpp saraxe ko wala juróomi kilo yàpp saraxe ko yàlla musal ñu ci bés boobu bu ñëwee mu doon bés boo xamante ne bés bu sedd la te euh, duñ duñ duñ ko bàyyi noonu buñ toogee di nekk suñuy kurus tamit dinañ ci nekk di ko di ko ñaanal loo xamante ne lu ci waroon a wàcc ci ay musiba mu mu mu doon loo xamante ne lu lu lu yem la mu doon loo xamante ne du lore sa bés ndaxte Ousmane Sonko moom tamit doon na koo xamante ne nit bu jug pour def ko lu bon ku jug loo koo xamante ne da dem ci sëriñ wala pour def ko lu bon yow yaay yàqule moom am na sëriñ torop waaye tamit li ma lay wax Macky dafa mystique moom moom Ousmane Sonko na bàyyi xel bu baax bis bu reppee ba dem euh, uyu ji mun na am gàllankoor. juge bi lu xew. mun na am gàllankoor wala mun na bañ a ñëwaat. ñu jàpp ko pour ñu jàpp ko su boobaa moom na fexe mu gën a fagaru am na sëriñ waaye na fexe mu gën a fagaru ndax Macky dafa nekk koo xamante ne. dafa dafa dafa mistigu yaakaar naa loolu moom ñëpp xam nañ ko boo leen boo leen xoolee rek ndaxte élection yi weesu ni ni élection yi député lañ koy wax boo xoolee Mimi Touré dañ koo xabtal Mimi ci boppam dañ koo xabtal moo tax mbir mbir mi demee demee noonu ni mu demee waaye liñ ci gis loo xamante ne dañ dinañ ci gis loo xamante ne duñ ko ñemee wax waaye liñ ci wax nii rek dëgg yàlla moom liñ ci mën a wax waaye ba bés buñ buñ ci yéegee dinañ gis incha allah liñ ci waxoon. jërëjëf jubal nga tàggatoo. waaw di rafetlu liggéey bi torop di kontaan tamit ci yéen di nuyu tamit waa Sénégal tamit di wax tamit Sénégal fii réew jàmm la na ñëpp doon benn liggéey ñiy dimbali nit ñi dimbale nit koo xamante ne yaa ko raw ci lenn nga dimbale ko ci moom ba moom mu motal fa mu bëgg a àgg. Euh, xol yi doon benn loolu kese ñaan ñu ñaan jàmm ñëw ñëw ci réew mi waaw waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa